ñu xam loolu la fi maam yi bàyyi woo Sénégal. Navel et Gourel Serigne accueille cette fois-ci la Banlieue du Cœur mbokku téléspectateurs 2STV euh, di leen euh, gërëm di leen sant ci teewle bi nga xamante ne ni yéen ñu koy amal euh, depuis koor gi tàmbali ba léegi donc léegi-léegi lay doon ngeen gis nañ dugg ci ruxuy ak ruxaat yi gox ak goxaat yi yëpp leen detta li nga xam ne moom la min calmini on onon adduɓe ballal ɓe min juurima on kadi min beltanima on ko mbaɗɗon ko min mbi yo allah yoɓon moƴƴere ko mbaɗɗon e lewru nduɗo koorka ko mbaɗɗon e heen min mbiyon yo allah yoɓ on heen moƴƴere ko mbaɗɗon on allah yo allah moƴƴere on jaara min jii ballal moɗon min beltanima on min ko joni ɓe garat ɓe kalnimi kono min jii ko wino ko min jii min beltanima on heen on jaarama yo yoɓon moƴƴere waaw jërë ngeen jëf ci li ngeen def yàlla na yàlla fay yàlla ngeen am ci tiyaabu bari waaw yàlla yàlla na yàlla fay ci àdduna balaa laaxar incha allah yàlla yéen ñëpp seen aju faju ngir yàlla yenente bi ak suñu sëriñ barke sëriñ Sam sax ak barke suñu sëriñ Seex Tijaan ñu ne leen di ñaan lu ne leen yàlla defal sutur si barke alquran al azim parce que lii ñun yittee nañ ko lool waaye ñoo ngeen ñaan di leen ñaanal yàlla encore yàlla may leen gudd fan yàlla defal leen sutur te encore yàlla ah, indi ñu mel ni yéen jàpp si daara yi moom jàngale alquran rek lunu taxaw fi kon amee ku ñu ñun jàppale si jàngale alquran bi loolu moo ñu gënal lool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 calminama dental ngal on nande no garɗon ni bisimilla moon hande ɗum ɗo ɗum o gaddima ɗo e dow amen walirorade minen tan dal mbiraw dal ko idigo e rawde on jarama par ce que komin jaltunoɓe maire amen o noddi min e wi onon on ndewi ɗo min gara ɗo min paɗa on min kawra ala waɗi gilannade nde min gari ɗo taw minen kawri minen paadi on no feewi min jawano famde ko onon so nona ɗum ɗon hande law min gartanno min jooɗo min kawra mi ngi lay sant rek jërëm ko rek yéen yàlla ubbi xewal jox ko ci jàmm ji ñu ngi yàlla gën a jëm kana ngir yaram gudd fan ak fekk ko mun ko tatal jërë ngeen jëf sant naa leen gërëm naa leen ne nag ñun si mën a def nit lépp lu muy def rek nañ ko sant rek yi ñaanal ko rek gën a yokk ñoom jërëjëf ɗum noon on jarama no fewi minen duwano on no fewi yo allah nawru ɗum yeeso yo allah yaaru yeeso pewjuɗo ɗum ɗo o yo allah hokkumbo ko ɓuuri ɗum ɗo ɓuuri ɗum ɗo ha heewa yo allah baraji ha heewa ha heewa yo ñaago allah noon minen fof minen duwanongo yo allah o ganduɗa komo hokku moon tawa moƴƴe moɗon e, e min ñagono moon allah moƴƴere tan e barke ɓuura an o e barke ganduɗa sukaɓe omɓe ɗo ene jangga deftere allah ɓe yo allah ganduɗa ko ɓamɓe e ɓamtu moɗon ɓamta leydi ndi ɓamta mawɗo leydi ndi ɓamta kala kene moƴƴa e eh, e dendagal waɗana men caɗele e leydi he yo allah duñcan men allah min calmini on ko adi foof ɗeɗo koyɗe ɗe jabɓuɗon ɗe yo allah ɓooy moƴƴande on heen yon ɓooy yahde heen kadi oɗon jaajo heen yon ɓooy kadi habrodirde e yimɓe ɓe tawa kadi ko fela moƴƴo ɓe ngannduɗaa so tawi on dewi ɗum kadi jaadu ɗon koye sunna yo allah tawtu on heen kadi e moƴƴere ni kadi ko ni tan neɗɗo waawi waɗande banndum mbiɗa sikki ko balle balle noon so ngaddaama addante tan ko ɓurɓe haandude heen no alhamdulillahi rabbil alamina min jetti allah min nganndi kadi oɗon continue oɗo façon min jetti min duwono on noon yo allah moƴƴin yo allah newnu yo mi weltima yo allah weltinon yo allah junnu balɗe moƴƴini battende yon ɓoye waddini ya barke allah ene laa ɗum on jarama no fewi on jarama yo allah teddi noon allah teddi noon no teddinor mawɗo ni on jarama on jarama yo allah waɗi moon barke yo allah waɗi moon barke yon juut balɗe moƴƴon battende kay moom xanaa kontaan rek yal nañu yàlla boole kontaan rek yal nañu yàlla jëmale kanam yàlla ngeen fi yàgg yéen it may ñu wér yaram ak gudd fan min beltema golle he ñaago allah yaali yaaru ɗum yeeso allah hokkon ko jiɗɗon ko allah nawa ɗum yeeso nawa marmide koro yeeso hokkon cellal e sellirede e juuɗe balɗe e arsuguyaji en ya hormanaɓe moustapha mbaɗɗon tampere mawɗum ni jaam tan eyyi tawi on jarama hande yi golle moɗon on jarama yo allah ɓeydu ha heewa ha heewa jara gen yalla en yalla en dundu jallema salam merci beaucoup contenant ba ɗum waka sax après corps bi dafa ma jàpp trop ko <laughs> jara gen joof yalla gen joof yalla gen fekk dewlu bari quoi merci beaucoup min jarama min mbima yo allah yom moƴƴere allah rumtini barke ha heewa saabi koɓe mbaɗɗo koni heewi amen miskine allah kam so addanama ɗum ɗo wiyat tan koɓe jarama allah jarama yo allah yom moƴƴere allah lumtini barke ha heewa allah ɓoyna ɗo ɓoynaɓe ɗo e ngal ɗo meccal ya barke allah e nelaɗo muɗum ya barke sekno amad tijjani yo allah yom moƴƴere comme ni mu ko waxee sànq rek Navel ak Gurel Serigne ñoom ñoo ñu dalal Navel Gurel Serigne bu ñu ko waxee rek xel euh, dem ci fi nga xamante ne nii moo di Matam tey nag ci Fuuta la ñu nekk euh, ñu ñëw fii depuis euh, ce bu nekk yoon bu nga xamante ne nag xaw na métti gis ngeen depuis si ngoon ba léegi ñu ngi dugg ci kër yi def comme ni nga xamante ne nii rek moom lañ doon def ci Sénégal ñu ñëw ànd ak li équipe bi nga xamante ne nii moo di Marmite du Cœur Amdi Moustapha Dieng ak Alassane Dou daal di koy jiite ñu dugg ci askan wi indil leen li nga xamante ne nii moo di seen am ndimbal nekk nag ab façon bu bees maanaam aw doxalin wu wees euh, bu nga xam ne Mor mi di kër andi na ko ci euh, depuis mille 2020 loolu nag dëppo ak li nga xamante ne nii moo di mbas mi di euh, coronavirus maanaam ay ñam lañ daan togg di ko jox askan wi léegi nag ñu daan indi ay coppite def ko ay kit alimentaire di leen ko jox ñu gis ne sax loolu moo gën a dëppoo ak jamono waaye itam loolu la askan wi gën a soxla ndax kooku si jox rek daanaka da ngay gis mbette mi nga xamante ne nii moom ngay gis ci kanamam et comme ni ñu koy waxee rek marmite du cœur c'est la marmite qui apaise les cœurs mais aussi les esprits gis ngeen euh, mbooloo mi nga xamante ni nekk ñoom ñoo ñu tertu tey mu nekk ay xale yu nga xam ne ñu ngi leen fekk fii ci euh, Navel Gourel itam ñoom ñu ñëw taxaw euh, tertu ñu ñu nar fi amal li nga xamante ne ni moo di distribution kit alimentaire donc léegi-léegi lay doon ngeen gis dañ dugg ci ruxu ak ruxaati gox ak goxaati yëpp daal leen detta li nga xam ne moom la ñuy indil yaa ngeen jëf machallah allah kadi addiri hono ndani ma mbiya kadi no waɗiri ni kadi ɓuuri ɓuuri wallahi ah, tawno so wayi hono ndani tan mhm. ko yimɓe fof ene ndaara ko ballal ngal ngannduɗa ballal miskineɓe ballal ngal ngannduɗa bandal seeremɓe mhm. ballal ngal ngannduɗa so tawi yettima tan ma dañ hen baraji no hannirta ni mhm. machallah kadi e yettude accompagnement o e nde gila ɗum waɗi kamɓe fof ɓe darima hen kadi darde tinde yo allah newno ɗaɓɓande ɓe jaahina ɓel moustaha on on jaara on jaarama ko adi fof on jara min jetti allah on darinima haqqe almudagal fodde ko mbawɗon onne yo allah yo allah yoɓon ɗum tan min mbawi wiide mon yo allah yoɓon yo allah teddi e yo allah yoɓon hannde e fof min beltima wonko ɗum ɗo mbaɗɗon allah ne ko ɓuri ɗum ɗo yo allah yoɓon yo allah nanggan so atan min beltima ala ko min mbawi jaram ballal mon majji on jarama on jooɗi yo allah yoɓon yo allah yoɓon merci yo allah yoɓon on feewi jarama yo allah yoɓon yo allah noon kala ko sadiri yo allah e, e, e, humtanɓe yo allah waɗɓe e leñol nelaɗo allah sallllahu taala yo allah surɓe yo allah faabuɓe yo allah uddiriyaña e amin dokkaɓe duwaw kontaan nañu trop trop trop trop trop wax dëgg yàlla kontaan nañu lii moom yàlla rek moo leen mun a fay kontaan nañu trop jërëjëf jarama on jarama mi yetti allah mi yetti on kañum ne ko miskina allah ononne on jarama yo allah yoɓon yo allah yoɓon jobdi moƴƴiri yo allah ittan on gueɗal janggo ya ñamu nalaɗo allah on jarama nenam yo allah yoɓon yo allah siftoron ya barka allah en ala ɗum on jarama noon min mbiyon yo allah yoɓ ɗumnoɓe diyon yo allahu yo neɗɗo daraniɗo l'islam wi neɗɗo daraniɗo l'islam ko bande wiyanma a a tinnima ko tawi peli l'islam ko peli l'islam yo allah hokku on baraji feliɓe fele l'islam hokku on pele o kadi tawi ko jorto l'islam woto allah soyno on wi jorto mo jogiɗen hono o so tawi ko jorto l'islamu to allahu soyni on eyyi so neɗɗo yiiɗi hunde noon tan heɓat hunde nde ya teddunɗon on jarama min beltima no fewi on jarama yo ko adda e ɓoodi on jarama min jii on haali fof moƴƴi jarama no fewi on jarama fati salatu ko fati noon moƴƴere aɗa wujino hoore ma yo allah yo allah jun yo allah en mbattinimo wuuri joomum yo allah ɓeydu yo allah ɓeydu barka e bawɗe jarama konda to fo yo allah hokkumo min caggal allah min caggal makko jarama no fewi yo teddino mbattinimo wuuri nde allah ɗon jaam kontaan na kontaan na kontaan kontaan na alhamdulilah kontaan naa rek kontaan naa bëri ma bëri ma noonu bëri ma crédit moo tax munu ma wax. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm waa Marmite du Cœur si geste yu baax yi ngeen di def yàgg nañ leen a suivre nag ñu leen di ñaanal li ngeen mënoon ren bu de ngeen mën lu ko raw ñu ko ñaanal moom mi yàlla may ko tan ndax ku ko gis xam na ne dafa soxla ndimbal instant yi dañoo wax na dem faju ji Dakar chaise roulante mi ngi nii dafa yàqu. xawaa la tudd tànk bi gis na munu sax dox day munu sax dox lépp dañ ko koy defaral calmini on min juurima moon waa marmite du cœur min calmini on min juurima moon no feewi hamin ñaago ballal hawa bano kala jiɗɗo ballu wallude mo numéro ji ɗi nan ɗo noddira beela ene walla mo ɗo joni ko mbiya ɗo yo ya o safroyo dakar 77 202 66 69 kala noddude hen ene wawi wallude mo 77 202 66 69 on jaaraama allah juutno balle moƴƴina battande min calminimo yettima tawde télé ari i arda e ration am wallay yettima mi salminima yo allah teddi yo allah teddi yo allah wurnu on ha kaaɓon yo allah ɓeydu barke no fewi yo allah yoɓon teddungal mum jarama jarama yen baale jaam Euh, gis ngeen distribution kit alimentaire bi nga xamante ni nag ñu ngi koy amal euh, fii ci Matam euh, ni mu daal di demee ñu dem nag ci ay dëkk ci mel ni Nawel waaye itam Gurel Sere ñu ñëw askan wi nag daal di génne tertuñu wàllum solidarité la ñu wax Tomate mi du cœur nekk fukki at ak ñaar mu ci daal di dox loolu waxal sax ba ndaw ñi itam gis ngeen ni génn nañ bu baax a baax naam sax guddi na lool waaye teewul rek équipement mi du ànd ak Amdy Moustapha Dieng ak Alassane Ndour euh, ñoom xaadiwuñu euh, benn yoon ci fi nga xamante ne nii sax maanaam 42 euh, degré lañ fi fekkoon mu nekk aw tàngaay wu méttee métti waaye itam gis ngeen ni réew mi dëkk fa nekk dëkk bu nga xam ne dañu soxla ndimbal lool ci fi nga xam ne jot nañ fa dugg waaye itam gis ngeen plaidoyer bi nga xam ne soxna soosé daal dina koy yëkkati moom nag mu nekk si jafe-jafe ñeel wàllu wér yaram daal di ñaan rek ngir ñu jàppale ko bu baax a baax mbokku téléspectateurs yi 2STV yi mu nekkoon euh, seen émission Marmite du Cœur fi nga xamante ne ni euh, moo di Matam di leen jox dig daje ëllëg dañuy desandi ak yéen rek ba Matam léegi. yàlla moom moo leen di fay surtout ci biir wéeru koor wii. jërë ngeen jëf. lii rek ñun bëgg nañ ci sax am nañu yaakaar ci xale yi fi indi. yàlla yokk xéwal geeg mën-mën geeg kàttan gi rek. mbiru xol la ñëpp jàpp nañ ci. li ngeen mën ren yàlla na ngeen mën lu ko déwén. macha allah yéen ngeen Seydina Muhammad ñaanal nañ leen yàlla def jàmm. علي تصلى